ok kon incha allah ñu ngi war a jël suratul ahzab ci fi sunu borom subhanahu wa taala di waxee ni turji man tashaau minhunna ci aaya juróom fukki bi ak benn aaya juróom fukki bi ak benn إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الشيطان الرجيم sunu boroom subhanahu wa ta'ala mu ni yow yonent bi turji man tashaa'u minhunna dellool ku la neex ci ñoom wa tu'wi ilayka man tashaa fatal ku la neex ci ñoom wa man ibtaghayta mimman azalta képp koo sokkuwaat ca ña nga xam ne da nga leen a fegoon soril leen fala junaha alayka amoo benn ngànt ci loolu zalika addana an taqarra ayunuhunna lii day moo gën a yey ci di dalal seen bët ya wala yaxzanna ñuy bañ a nekk ñuy tiisooti wa yardayna bima aataytahunna kulluhunna su ko defee ñu gërëm ca la nga leen jox képp kenn ca ñoom wallahu yaalamu ma fi qulubikum yàlla day xam na li nekk seen biir xol yi wa kaana allahu aliman xalima yàlla day nekk na aji ku xam nekk na aji ku lewet laa yaxillu laka nisaau min baad du dagan ci yow benn jigéen gannaaw lii wala an tabaddala bi bihinna min azwaaj wala ngay soppee ci ñoom ci bépp so benn soxna bu mën a doon walaw ajabaka xusnuhunna doonte ni soxna yooyu da leen a yéemoon dalaa yéemoon la nga xam ne mooy seen taar illa ma malakat yaminuk lu dul loo xam ne moom la ko sa ndeyjoor ca mooy say jaam yu jigéen wa kaana allahu ala kulli shay'in raqiba yàlla day nekk ne bépp mbir koo xam ne moo koy fuglu ay moo koy surveiller mbokk gis nañu biñ mujjee jàng démb sunu boroomu utoon ay melokaan ci ay jigéen ne yonent bi alayhi salaam mën ngaa denc ñii daldi koy ubbil bunt bi defal ko ca loo xam ni moom rekk moo ko sañ te mooy jigéen dajeeg moom na ko may naa la sama bopp yonent bi jël ko mu nekk soxnaam amma beneen góor bu dul moom sunu borom limité na ko ci nombre warul dépasser ñeent te it warul ànd ak benn soxna lu dul ni kilifaam moo ko ko may te dafay am seede am ay can ak ya ci aju soxna yooyu nag wër la sunu borom subhanahu wa taala ne ko xoolal ñala ca neex nga aye ci ñoom xoolal ñala ca neex nga bàyyi leen bañ a aye ci ñoom ña nga xam ne da nga leen a bàyyi woon aaye woo too ci ñoom koo te dem sàkkuwaatit amoo benn ngant ci loolu te loolu mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla sant ko woon mu maandu ci soxna yi ci wàllu ay comme ni mu ko sante yeneen jullit ñi mbokk jullit su la yàlla defee nga dajale ci yow la nga xam ne ay gor yu soxna lañu ñaar ñett ba ñeent danga war a maandu seen diggante te na ngay fanaane ak ñoom allahuma lu dul diisoo boo xam ne danga koy diisoo ak kenn ca ñoom mu nangoo bàyyi ay àqam lu àndul ak benn contrainte benn xat-xat su boobaa dara nekku ci sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayoon na ko muy ay fu ko neex ci néegi soxnaam kum ci dum mooy woon weerit amu ci benn bàkkaar waaye sallallahu alayhi wa sallam musul def loolu loolu ko yàlla may mësu ko def dafa masa maandu seen diggante di uuf leen ci bus bu nekk dana dugg ci néegu kenn képp ci ñoom gannaaw takkusaan muy dàq suñu aada maam yi nga xam ne dañ naan boo ayee ca fàccaam loo soxla ca Marème Ndiaye da nga koy yónnee waaye amoo droit dugg ci néeg ba loolu mbokk ak tengal la kër ga sa kër la soxna bi sa soxna la néeg bi sa néeg la heure bu la neex mën nga faa dugg chaque takkusaan daana wóor soxnaam yépp gannaaw ba soxna yi bu guddi jotee ka ay soxna yépp daje néegam suñu waxtaani ba pare ba reer ku nekk yonent bi alayhi salaam jóg ànd ak ñoom ba ku nekk dugg ci appartement muy xujuraat yooyu nga xam ne dañ ko amoon loolu kon la daan def ku nekk amoon sa benn bis lu dul ne sunu yaay sawda moom xam nañ ni bi ko yonent bi jël boobu mag la donc biñ demee ba madina gën na mage sunu yaay Aïcha bi ko yonent bi jël xale la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man day bis bi nga doon ay ci man may naa ko Aïcha looloo taxoon sunu yaay sunu yaay Aïcha yonent bi alayhi salaam daan ay ci moom ñaari fan yeneen soxna yi mu ca am benn fan mu amoon leneen lu ci yàlla nammoo ñett mooy jibril alayhi salaam daawul dikkal sunu yonent alayhi salaam lu dul ci nekk Aïcha te xam ngeen ci xikma boo xam ne yàlla moo ko def mboolem soxna yonent bi alayhi salaam jaar nañ ci yeneen i góor ba mu des Aïcha loolu tamit di beneen xikma borom bi subhanahu wa taala kon loolu muy wane ne bu dee da ngeen a d'accord comme masalan li ñuy tudd ay takkoo ah man kat dañuy sëy waaye man benn yoon laa fi mën a ñëw par semaine wala yu demee noonu bu ngeen ci dëppoo amul benn problème mais amoo droit xañ ko ko ak xam la bu dee diisoowu leen ci loolu sunu borom ne lii day moo gën a yey ci dalal la nga xam ne mooy seen bët ya wala seral seen bët ya ci yeneen déggin mbokk lii daf ñuy jàngal ne ngalawaay li xew tey xewoon démb Occident tey mu raam ba dugg ci ñun te moo di ne ne ay jigéen intellectuel yoo xam ne ñoom dañoo gis ne dem di wujje daal loolu moom non non non non dañ ko def lan la ñu jural nga gis dem ba am cinquante ans mosuñu am jëkkër bal ñu dem ba sax dee mosuñu am jëkkër su ko defee kon nga am góor gu maandu boo xam ne mi ngi jëfe la ko yàlla sant te lu mu bari bari mënut a paase ñeent lum bon bon semaine bu ne ngi gis ko gis ko ca benn yoon ndax loolu gënul bañ koo gis ba faw akay su ko defee kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax am la ci sunu borom yàlla tegit mu ne yàlla gën a xam li nekk seen biir xol yi te yàlla mooy ki xam te yàlla mooy ki lewet te it alhamdulillah mbokk suñu borom yàlla xam ne li nekk suñu biir xol la cay yéene bu rafet danañu ko bindal ay tuyaaba la cay ay xalaat yu ñaaw te jëfewuñ ko yàlla baal ñu ko moo tax mën a mooy alxalim léegi suñu boroom defal na yonent bi priorité bu mu amul ci kaw jullit ñi te mooy yow am nga droit takk jigéen ñi waaye suñu boroom ci maandu teem la wëlbatikuwaat tënkaat yonent bi foo xam ne tënku fa jullit ñi te mooy ne yonent bi alei salaatu wasalaam gannaaw tey nag du daggan ngay takk beneen soxna booba yonent baa ngeeg juróom ñeenti soxna mu ne ko gannaaw tey du daggan ngay takk beneen soxna borom xam-xam yi ne yàlla leen ko fay ndax ba leen yàlla laajee su ngeen bëggee àdduna ñu jël jox leen lu ngeen bëgg ci àdduna ngeen dem umatti'kunna wa usarrihkunna su dee nag yàlla ak yonentam ngeen bëgg ngeen toog muñ coono yi ñoom ñépp ñu nangoo toog muñ ko sunu borom yàlla ne yonenti yàlla bi bis na ki tey daganatul ngay takk beneen jigéen di dolli ci ñi nombre bii nga yor muy neuf it daganul nga bàyyi kenn indi keneen daganul nga bàyyi ñaar indi yeneen ñaar mooy ñii ñoom ñooy say soxna ci kaw suuf jeex na loolu mbokk soxna yooyu booba mooy nekkoon sunu yaayu sawda sunu yaayu aïcha ak sunu yaayu xafsa ak ummu habiba ak ummu salama ak ki nga xam ne moom mooy zeynab bintu jaash ak ki nga xam ne nii moom moo nekkoon maymuna bintul xaarisa ak juwayra ak ki nga xam ne mooy safiya mooy juróom-ñeent yooyu ñoo waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon yaayu jullit ñi nam ma dëkk ak moom ci aljanna ñaar ñi yonent bi alayhi salaam mosoo na yor ay soxna ba dugg dugg ci ñoom ci lal moo nekkoon suñu ay Xadija moom xam nañ ne gaañu na avant yonent bi di dem Madina ak ki ñuy wax Zeynab bintu Xuzayma ñi ko doon tuddee umul masakin moom it ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la faat su ko defee juróom-ñeent yooyu ma leen wax yépp tey ñu nga tudd ca baqiya radiyallahu anhunna sunu borom yàlla kon subhanahu wa taala loolu la wax mu ne ak jigéen lum la yéem yéem amatu droit takk ko te mbokk am naa jullit ñi yàlla tënk ci kaat man gis naa ay góor yoo xam ne li seeni soxna dem nañ ba am quinze femmes ci non waxuma ci lu dagan laa wax de kii dee kii mu fase mu takk kii takkaat mais musul paase ñeent loolu gis naa ko te it jàpp ma ne ay tappale ma doon ci yóbbu am na nag benn buur ci arab yi faatu na léegi yàlla na yàlla jégal ko mas naa dégg jamono bi may gis loolu mi ngi nekkoon ci quarante femmes donte ne quarante femmes yi musul paase quatre waaye chaque deux mois mu changé keneen donc loolu moom la yeneen ci bi doon wax laana allahu zawaqina wa zawaqat yàlla yàlla rëbb ñay mos ca góor ña ak ñay mos ca jigéen ña bokk jigéen boo koy takk da ngay fas yéene nekk ak moom ba faw jigéen booy dugg ci sëy da ngay fas yéene nekk ca ba faw loolu mooy la nga xam ni mooy la am amaa nag ña nga xam ne ñoom baddi nañu fa yàlla borne woon julit ñi ci kaat baddi fa yàlla borne woon yonent bi alayhi salaam ci qualité ñoom da ngay dégg ne musiba mënul passé loolu wallahi alaaji Faajo Gay bi ma lay wax te di ko wax lu bari rahimahullah nettali na ma koo xam ne nii maamam sos na fi mbir mu rëy ci Sénégal mu ne ko man sama maam mi ngi bàyyi juróom-ñaar fukki jabar ak juróom ñu ne ko mu ne ko paa bi nag ay sa papa papa moom mi ngi dund ba tey mu ne ko paa bi ah paa bi moom xaw ma ñaata la am mu ne ko mais lu tax ñu def loolu mu ne ah mais ñoom dañu xam ne seen yaram jigéen bu ko laal araamal na sawara moo tax ñu def loolu ah jigéen bu ko laal araamal na sawara waaye neex na ci ñoom ba dee de mi ngi noonu juróom-ñaar fukki biskit ak juróom ah loolu mbokk da ngay gis ne wallahi même bu doon te ni yàlla adduwu ci sax xel mu rafet nanguwu ko am déet abadan xel mu rafet nanguwu ko parce que doomu aadama doomu aadama rek nga xam ngeen intellectuel yi médecin yi si bëri ay intellectuel lañu sama benn mbokk daf may nettali dafa dem hôpital am ku mu fay seet benn benn soxna ñëw baal maay man maay ab ab ab ñetteelam baal ma ma gis ko médecin bi ne ah mun a toog ñu toog keneen ñëw ah médecin di mun a baamer man maay ab ñeente la mu ne yaa ñeente ma kii ki nii tax mu ñëw fii yaa ngi dégg donc nag ñooñu c'est des intellectuels mbokk ci lit waaye suñu borom yàlla moo bind ay jaamam xam leen bépp góor bu normal war ngaa mën a yor ñeente soxna waaye nag suñu borom dane su ngeen ko mane su ngeen jàppee ne du ngeen maandu yem leen ci kenn yàlla ubbiwul rek ne yéen ñëpp takk leen ñeent daf leen takk leen ñaar wala ngeen takk ñett wala ngeen takk ñeent su ngeen jàppee mënu leen maanu ngeen yem ci kenn waaye góor gu normal mën a am ñeent waaye it yàlla mi natt la ñeent yooyu day wañu ne ku takk juróom yaa ngi da nga am koo lor ku takk juróom benn da nga am ñaar ñoo lor ku takk soixante quinze it da nga lor soixante onze mi ngi noonu la chaque fii loolu moom ñu bàyyi ci xel bu baax kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma jaami sharia ya nga xam ne moom am nga ko loolu dara nekkul ci ngay ànd ak ñoom looloo tax mbokk li yàllay dogal mooy gannaaw xadija ca makka mboolem soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi mu nekkaloon ci madina xam ne neef yooyu doon dund ak Zaynab bintu Xuzaym bi faatu amu ci kenn ak doom ba benn koo xam ne nii jigéen la bu jóge woon Égypte di Maria al-Qibti nga xam ne mu qawqis buuru Égypte moo ko mayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kooku la yonent bi am benn doom muy Ibrahima alayhi salaam moo dem ba dund un an et demi moo mag ci doomu góor yu yonent bi alayhi salaam gannaaw ba yàlla subhanahu wa taala jël ko ci xikmaam gannaaw ba yàlla jël ko ci xikmaam lii la naka sunu borom wax mu ne yow yonent bi alayhi salaam lii laa la sant ca xam leen ne maa ngi leen di fëglu te gaa yi nagam yonent yàlla bi la yàlla naan ragalal yàlla yonent yàlla bi la yàlla naan maa ngi leen di surveiller kon keneen ku dul yonent bi waxi noppi su ko defee kon ñu bàyyi ci xel bu baax xam ni ni ñu war a rafetale suñu diggante suñu borom ca jàkka ja noonu la ñu war a rafetale suñu diggante suñu borom ca biir famille ba noonu la ñu war a rafetale suñu diggante suñu borom heure bu ñu demee ca marché ba ñu ngi noonu. kon mi ngi noonu suñu boroom subhanahu wa taala day wax fii rek ne ya ayuha alladina amanu e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laa tadxulu buyuta annabi bu leen dugg ci kër yonent bi illa an yuzana lakum lu dul ne dañ leen a jox ndigal ila taamin ci ñam woo xam ne gayra nazirina inaahu du ngeen nekk di xaar la nga xamee ne mooy ak ñoram mooy di xaar ndabba mi ñore walakin ida duitum waaye buñ leen woowee fadxulu dugg leen fa ida taimtum bu ngeen demee ba lekk ba pare fantashiru tasaaroo leen wala mustaanisiina li xadis bu leen nekk di wéttalikoo ci ay waxtaan inna zalikum kaana yuzi nabiya lool day nekkoon na di lor yonent yàlla bi fa yastaxyi minkum mu daa di rus ci yéen wallahu laa yastaxyi min alxaq amma yàlla moom du rus ci dëgg wa ida saaltumuhunna mataan heure bu ngeen dee laaj soxna yooyee ay njëfandukaay bu mën a doon fasaluhunna min warai xijab na ngeen leen laaj ca gannaaw la nga xam ne mooy rido yo dox seen digganteeg moom muy kiiraay ga zalikum atharu li qulubikum lool day moo gën a laab ñel seen xol yi wa qulubihinna ak xol yi soxna ya wa ma kaana lakum an tu'zu rasulallah nekkul ñeen leen mukk ci ngeen di lor yonent bi yàlla bi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada wala ngeen di denc ay soxnaam gannaaw moom mbukk inna zalikum kaana inda allahi azima loolu day nekk na ñeel leen ca yàlla mbir moo xam ne mu màgg la in tubdu shay'a aw tuxfuuhu su ngeen feeñalee dara wala ngeen nëbb ko fa inna allaha kaana bi kulli shayin alima yàlla day nekk na bépp mbir koo xam ne nii ku ko xam la mi ngi noonu bokk suñu boroom gis nañu ni alquran ji daf ne day jëme ca melokaan yi gën a kawe soo bëggee xam ci nit dëgg-dëgg mooy koo xam ne dafa xam alquran mu ne inna hadha alqurana yahdi lillati hi aqwam looloo tax mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñépp a ko bëggoon a gis ñépp a bëggoon di toog ak moom loolu nag taxoon na ba kër ga dafa nekkoon njooxe amuñu fenn fu ñu dale doonte ne loolu ak ëppal moo tax ndax yonent yàlla bi da ngay gis ne melul ni ñu bari ñi nga xam ne tey jàpp nañ ne ñoo taxaw place am nga xam ne mën ngaa dem bëgg koo gis une semaine boo indaalwul ab 4-4 ak mbubb mu diis boo moytul da nga fa yàgg doo ko gis amma suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam au minimum daana génn juróomi yoon ci jàkk ji dajeeg jullit ñi gaa yi loolu doyu la ah kay loolu tax suñu borom wax ci xujuraat walaw annahum sabaru xatta taxruja ilayhim lu tee ñu muñ ba nga génn comme yow da nga génn cinq fois daje ak ñoom waaye loolu lépp teewul woon gaa yi ëppal suñu borom yàlla nag daa di ne ay yéen jullit ñi bu leen dugg ci kër yonent bi lu dul dañ leen a woo ci ne kaay leen ngeen lekk te yonent yàlla bi tamit gis nañu ne bari woon na jàkka ja hôtel amul woon jamono madina ku masaan ñëw ca jàkka ja nga daan dal ba am foo dem nga daal di jàll génn foofee loole lañ daan tuddee asxaabu suffa avant ñu am ku leen di fat wala ñu am lu ñu mën a yore seen bopp dañuy dal ci jàkka ji léeg-léeg nag buñ daan ñëw daaw ñu am dara lu yonent bi alayhi salaam masaan am ci lekk da leen di woo bokk ko ak ñoom léegi nag am nañu bari comme dañ daan dugg kër yonent bi rek masalan bu yonent baa kër yonent bi dee en reer la nga xam ne ni moom mooy neuf heures ñoom huit heures ñëw nañ toog gis ngeen bu neuf heures jotee bu ñu reeree ba pare continuer toog ba dix heures sunu borom nag ni leen du noonu ay yéen yonent bi ay yéen jullit yi bu leen dugg mukk kër yonent bi lu dul dañ leen a woo kaay leen lekk te it bu leen toog di xaar ndab bi ñor bàyyi leen ba mu ñor bañ yekk ko ñu ne leen kaay leen su ngeen ñëwee lekk ba pare jóg leen ngeen dem bu leen fa nekk di waxtaan jëmale fu nekk bokk loolu yàlla nga ko wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye muy li valable ci jullit ñëpp mooy ngalawaay jullit heure boo jógee di dem sa kër mbokk jullit laajal sa bopp ba heure bi may dem duma ko déranger loolu muy benn boo demee ba demal fa sa bopp wala moo lu invité foo toll del laaj sa bopp ah mbaa man sama toogaay bi dérangé wu leen heure boo yégee ne yaa ngi leen di lor loolee nga bàyyi ci xel jóg dem nibbi loolu moom lañu aaya yi di jàngal muy sax ba ila yawmi din kon loolu la suñu borom yàlla wax mu ne nag yéen de yéen a ngi nekkoon di lor yonent bi waaye yonent bi da leen rus te it no am mbokku doomu aadama it war nañ am kersa du ne képp koo xam ne def na la lu la métti rek nga wax ko ko ci sa si nga xam ngeen sénégalais bu ñëwoon sa kër ak lu mu baadoola baadoola na ci ñoo xam ne ni ñoom xëy na ay nuyu la ñuy tëdd waaye mën nañoo ñëw ndeysaan koo xam ne moom programme moom bu jullee gee ba pare tuuti lu mu ca tegal tëdd ndax heure bu mu bëgg a yeewu su ko defee waaye ñëw rek waxtaan mu jeex ñu dóor beneen wax ba onze heures minuit booba fekk mbokk yaa ngi koy lor waaye xam nga sénégalais day rus ndax boo la koon suñ bu jógal dem damay tëddi laaxiri rek ngeen di rajo jëwaat yaa ngi dégg su ko defee kon doomu aadama mën a am xelum boppam yéeg ne kat kii man maa ngi doon koo xam ne dama koy lor mi ngi noonu sunu yonent alayhi salaam borom bi ne dafay rus te it yonent bi noonu la meloon dafa bëri woon kersa ba dañ ko doon méngaleeg ab jànq boo xam ne nii sëyagul nekk ci néeg yaayam sallallahu alayhi wa sallam ak kersaam gu bëri googe nit musul def erreur ba mu jàkkaarloog moom na ko nangam ak nangam day wax rek gaaruwaale ba waa ji xama ci boppam defaroo ca mi ngi noonu sunu borom nag mu ne moom du rus ci dëgg wallahu la yastaxyi min al xaq te loolu it mbokk da ngay gis ne bu dee loo xam ne nii moom àq la di farata wala lu xaraam loolu moom kenn du ci rus waroo rus ba war a ba rus a wax nit ki loo xam ne lu xaraam la waroo rus ba rus a laayi nit biir gi ci loo xam ne farata la waaye jullit it loo rus rus rus waroo rus ba rus a laaj sa diine yonent bi sallallahu alayhi suñu yaay Aïcha daana wax naan rahima allahu nisaa al ansar ma manaahunna alxayaau an yatafaqahna fi din yàlla na yàlla yërëm jigéeni ansaar kersa gu bëri gi ñu amoon teewul dañ daan laaj seen diine di laaj yu complexe yoo xam ne nit ku xamul diine bu ko laajee sax dañ naan ci daal kenn gënu ko ñàkk teggin mbokk soxna ñëw na ci yonent bi alayhi salaam dafa wax ne man day waaw léegi su ma gisee baax sama yére bi benn bi laa yoru deret bi da ci taq nu may def kaza wa kaza bal soxna ñëw na ci yonente bi alayhi salaam ay yu mu yàlla yónni man day biig sama borom kër dafa bëgg a ànd ak man ci dal bi ne ma da ngay jël position sangam ma ne ko loolu du ma ko def lu dul damay laaj lan la ci lislaam santaane yonente bi alayhi salaam ne ko waaw bu dee ne fa doom di mën a sosoo day nu ngeen mën a def loolu dagan la moo ko xoolal lu yu complexe yooyu ay kon mu lay wan ne mbokk sa diine bu ci rus dara dem naa ba am 60 ans xoolal xale boo xam ne sub sët la nga ne ko ah man kat damay dégg taaya ci mënumaa taaya ndax doo bind taaya jàngal ma ko mbokk mu jàngal la ko nga koy jëfe dajeeg sa borom moo gën nga dund ba dee xamu nu ñuy taaya loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee sa lépp diine bu ci am benn kersa yow góor wala jigéen te mooy borom xam-xam bi da nga koo war a yemeleeg médecin bi ñun ñëpp mën ngaa dem ci médecin mënula summeekul nga summeeku mënula summul tubay ji nga summi tubay ji am amul benn problème parce que da ngaa feebar naka noonu it bul rus digg sa digganteeg borom xam-xam bul am lenn loo koy rusalaaj ñu ngi noonu su ko defee sunu borom yàlla mu ne du rus ci dëgg mu ne na soxna yenente boobu bu kenn dugg ci biir néegam di ko laaj dara lu ngeen soxla taxaw leen ci biti ngeen laaj looloo gën a laab seen xol laab ci xolu soxna yërente bi waaye mbokk yi loolu daf ñuy jàngal ne ndegam soxna yërente bi la yàlla di wax naan li gën a laab seen xol mu yow góor bu ñëw dugg seen néeg di wax ak ñoom taxawal ci bunt bi laaj leen loolu it muy wane ne mbokk góor ak jigéen di dugg ci biir néeg di wéet loolu yi fitna la ci fitna yi fitna la ci fitna yi donte ne ñun dund nañ ci lu ci sunu maam yi dundul woon te mooy li ñuy tudd secrétaire patron bi ak secrétaire am ñoom ci bureau bi la ñuy nekk su ko defee léeg-léeg am na ñoo xam ne seeni bureau loke bi ci biir lay nekk yow mi nekk ci biti mënoo fexe bu ubbi ñoom rek ñu la mën a ubbil secrétaire bi ak ndaw si secrétaire boobu nga xam ne buy xëy day mel ne day sëy toilette ba jekk parfum ba xeeñ ñëw nekk ak patron bi huit heures ba quatre heures gars yi musiba mën naa passé loolo mi ngi noonu sama mbokk ba Cheikh Ndiaye yàlla na ko yàlla dolli wér mi ngi may nit seen benn waay secrétaire bi ñu yor ci bureau bi dafa ñëw ne mag ji mag ji chef yëpp mu ne man daal damay teg secrétaire bi mu ne ko non non non kii doo ko takk mu ne ko du ma ko takk mu ne ko mu ne kon liggéey li bureau bi waaye bureau bi moom dootuñu ko bokk moom moom yaa ngi dégg waaye mbokk loolu da ngay gis fitna la yu rëy yoo xam ne lu ñu yàlla nattoo la ala kulli xaal bàyyil xel ne yonent bi alayhi salaam nee na góor ak jigéen du ñu wéet mën a nekk ci place man faa def lu ko ñu yëgul lu dul seytaane leen ñetteel bu ko defee bu ko def mukk lu dul ci lor bu ko def mukk lu dul ci lu munta ñàkk sunu borom subhanahu wa taala mu ne yéen jullit yéen yellul ngeen di lor yonent bi yàlla bi yellul ngeen koy lor ci dara te bokk na ci lor yonent yàlla yonent yàlla ñoo fekk góor ci biir néegu soxnaam xam ngeen loolu góor gu nekk ku liggéey bi wàcc ñëw sa néeg soxna fekk am ponkol nekk sa sox ak sa soxna ci biir néeg ba loolu il faut mu am jeexital bu mu def ci yow kon waru leen a lor yonent yàlla bi muy benn ngoog léegi it aaya bi bi mu wàccee am lenn ci saxaaba yi yonent bi da ko fekk mu taxaw ak kenn ci soxna yi ci biir néeg bi mu ñëw mën a ko xëy diw lii bu ko defeti mu ne ko ah xanaa yonent da ngaa fàtte kii sama doomu bàjjan la di mu ne ko maa gën a xam sa doomu bàjjan la waaye bul defetu lu mel nii waa ji am lu ko naqari la waay xaaral rek bés bu dee ma taxu ko mel naan bul defeti li sunu borom yàlla wàcc aaye daa ji ne daganul ci ngeen lor yonent bi daganul ngeen di takk ay soxnaam abadan loolu lu rëy la ci yàlla te li ngeen nëbb xam naa ko li ngeen feeñal xam naa ko saa waay xam ne man mii la yàllay waxal mu ne musiba am na de ñu ne ca la jógee lu mu am ci ay jaam mu goreel ko takk ay giléem sarse ko pour gars yi jihaad fi sabilillah ba pare mu ne du ma yëg ne yàlla baal na ma lu dul damaa dee fi sabilillah alhamdulilah daa mujj dee fi sabilillah gis ngeen kon it sunu borom ne daganul ci jigéen ci yonent bi alayhi salaam bàyyi soxna keneen di ko takk abadan loolu lu rëy la ndax mbokk suñu borom waxoon nañu barki démb ne seeni yaay lañu ngi noonu mooy jigéen jigéeni yonent bi suñu yaay lañ nit dana takk yaayam abadan te war ma bi ñu jox suñu yaay lañ leen war a jox doonte ne nag mbokk loolu yonent bi rek moo ko jagoo malheureusement suñu sëriñ si fi nekk yépp ku ci bàyyi soxna kenn du la takk te loolu mbokk lu très grave la da ngay gis rawati dañuy dajale lu leen neex ci ay ay ay jigéen ñu ngi may wax benn waay di ma ñett yi ndeysaan koo xam ne fukkat ak juróom-ñett la am ñu may ko benn xalifa ku màgget kooku nekk moom quelque temps de kenn takku ko kenn takku ko yàlla dogal mu mujj ëmb gis ngeen xam nga loolu musiba la mais mbokku gannaaw yonent yàlla bi amul kenn ci saxaaba yi koo xam ne nii ay soxnaam ba mu dee dañ ko ñàkk takk ka ci gënoon muy abubakarin saddiq su nañu ne am na soxnaam bu ñuy wax asma bintu umays asma boobu jaafar moo ko doon sëy ak moom jaafar ibn abi talib bi nga xam ne nii mooy mag la ci ali ibn abi talib ba mu ko takkee faatu ca mu'taka abubakar jël ko def ko soxnaam ba abubakar deeyee waaw ba mu faatoo ba mooy sëñ sàmm ndax mi ngi fi ala kulli xaal mbokk d'accord ñu rafetal mais yàlla def na mayit la wax mayit mooy ku dee rek parce que gars yi boo waxee faatu nañu ne déet faat booy daa làqu fii mi ngi noonu ba mu faat doog ba mu faat doog ba mu kiyee góorub ñoom sàmba ga dafay gàmm ca ndar mu ne waaw ba yonent bi alayhi salaam dee waa ji jottali na waaw ba yonent bi alayhi salaam làqu mu ne waxuma loolu waxuma loolu dégg nga mu waaw góor gi nee na ba yonent bi faatu mu ne waxuma loolu waxuma loolu dama ne ba mu dee ñu suul ko laa wax yaa ngi dégg ah waaw su ko defee kon mbokkul gars yi gannaaw boo waxul dee dañ wala fi dañ naan ku xamul buur saay na ñu ne buur dee na mais pour ñoom sëriñ si fi yëpp kenn deewul ba mu làqoo rek boo soxlaa woo ko mu ñëw xetti la say problème waaye mbokk dañoo dee ñu suul leen mu loolu mu leer nañ kon ñu ne ba Aboubacar faatoo bokk waaw léegi Aboubacar bi mu bi mu faatoo kan moo ko sang mooy Asma bintu Umays ak Abdurahman ibn Awf Ali ibn Abi Talib dem jël Asma takk ko ca boobu Aboubacar mooy xalifa jullit ñëpp mu takk soxnaam loolu ñu bàyyi ci xel bu baax dañu naan la soxnaam ñu wax Atika bintu Zayd ki ko takkoon mooy Abdurahman doomi Aboubacar bi nga xamee ni nii dem na ba faatu Abdurahman ibn Awf daal di koy takk ñu dem ba faatu Omar ibn Xattaab daal di koy takk ñu dem boo Omar faato Useyni mi nga xam ne doomi Ali la xam ngeen kooku Omar bàyyi la ci moom ah daal di ñëw moom moo ko mujj takk su ko defee kon loolu saxaaba yi ñoom lañ doon dundee mooy dañu gisoon ne jigéen ñi nga xam ne seeni mbokk saxaaba lañ leen bàyyi dañ leen war a jël uuf leen am naa soxna yonent bi nag moom ñoom njabootu jullit ñépp lañu ay julit ñëpp leen bokk uuf ndax yaay julit ñëpp lañu loolee kon moom la suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax foofu mu ne nag moom lépp moo ko xam mi ngi noonu jalla wa ala
إن الذين يؤذون الله
sunu boroom subhanahu wa taala mu ne laa junaaha alayhinna amuñu benn nag ngànt ci wéetëg fi aabaihinna ci seen baay ya wala abnaihinna wala seen doom ya wala ixwaanihinna wala seen frère ya wala abnaai ixwaanihinna wala seen doomi frère ya wala abnaai axawaatihinna wala seen doomi sœur ya ay seen jigéen ya wala nisaaihinna wala jigéeni julit ña wala ma malakat aymaanuhunna wala loo xam ne moom na ko seeni ndeyjoor wattaqiina allah ay yéen soxna yi ragal leen yàlla inna allaha kaana ala kulli shay'in shahida yàlla day nekk na ci bépp mbir di aji ko koy seede inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi yàlla ki malaakaam day ñi ngi julli ci yonente bi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm julli leen ci moom wa sallimu taslima ca ngeen ñaa ñaanal ko mucc ak ñaanal mucc inna alladina yuzuuna allaha wa rasula ña nga xam ne nii ñooy lor yàlla ak yonent bi yàlla laanahum allahu fi dunya wal axira yàlla rëbb na leen àdduna ak alaxira wa aadda lahum azaba muhina te mi ngi leen di waajal mbugal moo xam ne mu leen di toroxal la walladina yuzuuna almuminina walmuminat ammaa ñiy lor julit ñu góor ña ak ñu jigéen ñi bi xayri maktasabu ci lu àndul ak lañu faggu faqad ixtamalu buhtaana ñoom day gàddu nañu aw duural wa isma mubina ak bakkaar boo xam ne bu leer la bu biir la ñu ngi noonu mbokk suñu boroom wax na ak soxna yonent bi di wax joo ëm ju ëmb mboolem jigéeni jullit ñuy moytu di dugg ci néeg di wéet ak góori jàmbur suñu boroom nag mu ne loolu day dara newu ca su dee ne seeni bàyyi lañu seeni bàyyi yooyu da ngay gis ne ku féete ak sa baay rek da cay dugg ku féete ak sa yaay ca mbokkoo goo xam ne nii gu sës la day dugg ci loolu masalan sa baay baayam baayam ba ci kaw fu mën a nekk naka noonu li nga xam ne nii dafa nekk sa frère baay kooku dañ koy jàpp ne moog sa baay ñoo yem da ngi noonu su ko defee yaa ngi dégg doomi yankuba ya ba ñuy wax naan ba leen yankuba laajee lu ngeen di jaamu sama gannaaw ñu ne ko naabudu ilaha ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa wa déedéet wa ismaila wa ishaq daal di cay boole ka nga xam ne moom mooy ismail su ko defee kon noonu itamit la ñuy gisee mbokku baay arab dana ko tudd fekk ma ngi cay yóbbaale yaay mooy la suñu borom di wax yonent yàlla yusufa wa rafaa abawayhi ala al arsh te mooy yëkkati na ñaari baayam ya lam ci jublu mooy papaam ak yaayam loolu it moo tax borom xam-xam yi yéen ñi dañ naan yàlla dafee dàq nijaay parce que nijaay day melal ay jat doomam soxna si ni mel kaza wa kaza mais ña nga xam ne dañ ne déedéet nijaay day dugg ca palaasu yaay kon jigéen wéet ak nijaayam ci biir néeg loolu dara newu ci wéet ak ay magu papaam ak rakk papaam ci biir néeg dara nekku ci loolu da ngay gis ne lay araam kay mooy ñeneen ñoo xam ne dañoo gën a sori ñooñu su ko defee kon suñu borom mu ne bokk na ci it la nga xamee ni nii moom mooy seeni frère ak seeni doom sa frère ak kum jur ba ilaa yawmi diin aram na sëy seen diggante sa sœur mooy ko bokkal ndey ak baay wala ndey wala baay kese ci jigéen ak i doomam aram na doomam yu góor yépp ngeen sëy ba ilaa yawmi diin noonu itamit nisaa'ihinna la ëpp ci borom xam-xam lañ ko firee mooy jigéeni jurit ñi waaye jigéeni catholique jigéen bu gëmul yàlla kii nga xam ne mooy jigéeni jurit warul nekk di ko woon ay taaram ndax maadaama gëmuñ yàlla gëmuñ yeneen ci yàlla mën na dem feneen naan kii nii la mel naa la mel nii la mel naa la mel ak la nga xam ne seeni ndeyjoor moo ko moom wa ma malakat aymanukum loolu mooy seeni jaam gannaaw ba sunu borom mu ne nag na ngeen ragal yàlla ay mbokku jigéen la muy def ci biir néegam yàlla rek ko mën a xam am déet tax suñu borom ne ragal leen yàlla te xam ne yàlla séede na lu mu mën a doon yàlla séede na lu mu mën a doon loolu moo taxit góor mën na nekk ci këram jigéen indi góoru jaamur ci sax du ko yëg yaa ngi dégg moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni yàlla nag mooy séede lépp gannaaw ba yàlla indi aay bu siiw lool bu jullit ñëpp a xam ca mooy mu ne yàllaa ci malaakaam ñi ngi julli ci yonent bi jullig yàlla ci yonent ci yonent bi waxoon nañ leen ko te bi ñuy jàng aay ci gannaaw huwa lazi yusalli aleykum yàlla mi ngi julli ci yonent bi mi ngi julli ci jullit ñi loolu mooy tagg bi muy tagg yonentam te xam ngeen taggu kilifa moo ëpp lu muy yëkkati di ko ko jox ni noonu te ji président de la république buñ toogoon conseil des ministres ñu def communiqué conseil des ministres ñu ne waaw le président nag a félicité monsieur tel tel tel ci taxawaayam ci réew mi kuy mbokkam dana ko félicité loolu mi ngi noonu kon it suñu borom yàlla mi ngi tagg yonenti yàlla bi ci kaw malaaka yi di mi ngi noonu malaaka yi ñi ngi julli ci yonente bi nu ñuy jullee ci yonente bi mooy ñi ngi ñaan yàlla sotti njéggalam ak yërmandeem ci yonente yàlla bi loolu ñu ngi ci sax suñu borom boole leen ci loolu mu ne nag yéen jullit ñi julli leen ci yonent yàlla bi loolu ba mu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu koy jàngal mboolem jullit ñi fekk lu jiitu Abdurahman ibnu Awf mooy nettali nee na dama ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mujj li ko daan jàpp bu wax yu dee ñoo jàpp ko mu jóg sujjuut sujjuut boo xam ne demoon naa ba tiit mbaa yonent bi faatuwul nee na bi ma ñëwee ba jege ko mu siggi na ma ay ibn awf yàlla day wàcce na ci man loo xam ne moom a gënal adduna li ci biiram daal di jàng aaya bi te mooy yàlla moo sant jullit ñi ñu julli ci man te it bégal na ma ni bépp jullit bu julli ci man benn yoon yàlla dina julli ci moom fukki yoon sallallahu alayhi wa sallam loolu kon mi ngi noonu yonent bi dem ci benn jataay boo xam ne Saad ibnu Obada moo ko woote woon mu jàng aaya bi ci kanamu jullit ñi benn sahaaba bu ñuy wax Bashir ibnu Saad jóg na ko ay yéemi yàlla yónni yàlla mu ne ñu julli ci yow nu ñu jullee ci yow yonent bi ne teg ba sahaaba yépp am kersa ne waru ko woon a laaj gannaaw ba mu ne leen da ngeen di wax allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ولا آل إبراهيم وبارك على محمد ولا بمك وخيف منك إنك حميد مجيد جناب وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد mu jàng leen salaatu ibrahim yi boobu nga xam ne soo demee yiñ ci wax am na tuuti ay baat rek je wuute am na ku ca dolli fil alamina am na ku ca dolli léeg-léeg wa azwajihi wa zurriyati waaye almuhim mooy salaat bi nga xam ne bu ngeen di julli da ngeen koy wax nga xam ne lenn ci borom xam-xam yi ku mel ne Shafi yi wala boog mazhabam ñu jàng ci moom taral nañ ci sax ba ne ku julli ba pare ci julliwoo ci yeneen bi julli gi baaxul doonte ne la ëpp ci borom xam-xam yi rawatina mazhab Malik ñoom dañ ne loolu sunna la boo xam ne sunna mu akkada la mooy waroo ko tey mukk di ko bàyyi te même bu doon tene ne da ngaa julli ba julli gi pare ci julli woo benn yoon ci yonent yàlla bi da ngaa war a sujjóot ngiree loolu nga bàyyi waaye nag taxul ñu ne julli gi day yàqu almuhim mbokk noonu la yonent bi alayhi salaam wax loolu kon julli dootu sikk sàkk ne mooy julli gi gën ci julli yi mi ngi noonu doonte ne ne maadaama concurrence bi dafa bari nit ñi créé nañ ay mbooloo te ku nekk bëgg nit ñi ñëw si biir mbooloo am na ñoo xam ne mbooloo bañ créé créé nañ benn salaat buñ ci dugal nee nañ salaat boobu waxuma moo gën mboolem lu ñu jullee ci yonent bi waaye nee nañ moo gën sax alquranul karim far yaa ngi dégg yéemu ci ne moo gën alquranul karim waaye ñu ne nga wax ci salaat yooyu benn nga xam ne mosul sax boo koy wax une minute moo gënal nga toog wàcc juróom benn junni kaamil loolu la ñuy wax salaatu la boo xam ne ku ko gis ba jël sa yaram aramal na sa wara sa doom sa sët ba baa juróom-ñaari sët ñoom ñëpp seen yaram araamal na safara salaatu la boo xam ne ku ko jël koo takk doomam araamal na sawara koo may jabar araamal na safara loolu mbokk ñu jël ko teg ko ci kaw salaatu yépp da ngay dégg ne ña nga xam ne ñoo ko gëm bu ñuy waat sax ca loolu la ñuy farwaat waatatuñ ci yàlla waatatuñ ci yonent yàlla da nga naan barke salaatu caam mi ngi noonu yéen a gën a xam ni waaw waaw maa ngi waat ci salaatu caam mi ngi noonu ah mbokk loolu ay erreur la jullit ñi la ñu war a jàngalante la ñu war a siiwal mooy salaatu ibrahimiya boobu moom la ñuy jàng ci heure boo xam ne nii ñu ngi julli moo ci gën allahuma bokk na lu ci gën a gàtt mooy nga ne allahuma salli ala muhammadin wa sallim loolu lu ci gën a gàtt la ca it foo ko tuddee wareef la ci moom nga julli ci moom su daggan ci jullit ngay toog ne muhammad daal di jàll wala rasul jàll déedéet fokk nga ne sallallahu alayhi wa sallam yow mi ko dégg it fokk nga ne sallallahu alayhi wa sallam foo dégg dégg tur yeneen sallallahu alayhi wa sallam lu dul yombal nga ci yenn borom xam-xam yi yombal ñu ne bu dee cib jataay la mel na jataayu xam-xam nga xam ne dañuy tudd yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam plus de cent fois ou mille fois avant ñuy jóg soo foo déggee turam nga julli ci moom loolu day tuyaaba rek la lay yokk waaye bu dee julli nga ci jataay bi benn yoon ci moom loolu yi dana la doy ci jataay boobu ba baa beneen jataay di ñëw loolu ñu bàyyi ci xel bu baax almuhim mooy kon yonent bi alayhi salaam mi ngi ñuy ñaax ñu baril di julli ci moom julli ci yonent bi kon wax naa la ko mooy dañ koy ñaan yàlla def ko noonu la ñuy julli ci yonent bi waaye duñ dem di ko rukkoo la ko sujjóotal ngi noonu moo tax daana wax ne laa tajalu qabri ayda sama qabri bi bu leen ko def fu ngeen di daje naan da ngeen fiy jaamoo yàlla te it ñaan nga yàlla nangu na ko ana ñaata kilifay diine ñoo am fi bisub ziyaar buñ leen di jagleel gaa yi ban bis lañ jagleel ziyaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul su ko defee kon dana sama xabri bu leen ko def place bu ngeen daje di jaamu yàlla fu ngeen mën a nekk julli leen ci man malaaka yi daañ ma jottali seen julli yàlla am na malaaka yu wër ci kaw suuf di ma jottali fu sama xet bi di jullee ci moom ku julli ci man benn yoon yàlla delloo ma sama ruux ma ñaan yàlla julli ci yow su ko defee yàlla julli ci yow la nga xamee ne ni moom mooy fukki yoon loolu ñu war koo baril rawatina ni ci bisu ajjuma yi ak guddi ajjuma yi sunu borom yàlla nag daal di ne nañuy ñi nga xam ne dañuy lor yàlla ak yeneen ci yàlla képp kuy wax lu ñaaw jëm ci yàlla kuy wax lu ñaaw jëm ci yonent yàlla suñu borom mu ne kii yàlla rëbb na ko àdduna ak alaxira te mbokk rëbbum yàlla musiba la ngi noonu mu ne nag képp koo xam ne day lor jurit ñi ca lam leen di lor defuñu ko su boobaa day ku mel nii day gàddu na aw duural ca it gàddu na bakkaar boo xam ne bakkaar bu biir la ca mbokk mu bokk ci musiba yi gën a garaaw ci kaw suuf mooy duural ab julit yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na am na juróom-ñaari bakkaar yu alagaate bokk na ci loolu qazful muhsanati al ghafila mooy jigéen bu fegu nga tuumal ko njaaloo naka noonu góor bu fegu nga tuumal ko njaaloo wala boog tuumal ko lu mu mën a doon ci bakkaar yi loolu ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk waaye ak neexoon rek mbokk mu yem foofu waaye yonent bi dolli ci lu gën a garaaw encore dafa ne saxaaba yi ndax xam ngeen luy jëw ñu ne ko ah ñun day yàlla ak yonentam ñoo gën a xam mu ne jëw mooy ngay waxal sa mbokk jurit loo xam ne bi fu nekkoon du ko neex ñu ne ko mais bu dee li ñuy wax dëgg la nag mu ne bu dee li ngeen di wax dëgg la su boobaa moom faqat ba hëtt mooy duural nga ko mooy yàlla wax buxtaan amma bu dee li ngeen di wax du dëgg non ndax yonent sa ne bu dee ne du dëgg moom da ngeen ko duural mais bu dee dëgg la nag jëw ngeen ko sa mbokk yaa ngi noonu sa mbokk def na musiba li muy def musiba la mais bu fi toogoon ñi mu woo ko wax mu dem nga koy wax gannaawam suñu borom nee na loolu mooy jëw bi nga xam ne mook mu deewoon nga koy lekk yéen a yem di loo xam ne dañuy ñaan yàlla musul ñu ci mais lu jafe mucc la yàlla nañ ci yàlla jéggal ci musul ñu ci ndax bu yemoon rek ci ne jëw mooy waxal nit ki lu mu deful bu boobaa jullit ñu bëri mën nañ caa mucc waaye da ngay gis ne waxal nit ki lu mu def léeg-léeg dañuy gis ñu toog di jëw seen baay ñii di jëw seen directeur de service ñii di jëw seen ku nekk waxumaa nag ay jàmbur kon borom boobu subhanahu wa taala mu ne ñooñu mi ngi leen di waa loolu indi nañ bàkkaar bu bëri ñu moytu kon lu ñu mën a moytu di jéem a lor julit ci deram ci alalam ci deretam ci lépp loo xam ne julit moom na ko daganul julit di ka ca lor ndax loolee na mën a jur la nga xamee ne nii mooy ay bàkkaar yoo xam ne yu màgg la ci yàlla mi ngi noonu suñu borom mu ne ya ayuhan nabi ay yow yonent bi qul li azwajik waxal sa soxna yi wa banatik ak sa doom yu jigéen yi wa nisaa'il mu'minin ak mboolem jigéeni julit ñi yudniina alayhinna ñuy wàcce ci ñoom min jalaabibihinna ci sa nga xam ne mooy seen jilbaab ya mooy yére yi nga xam ne mooy muur seen mboole mi awra zalika adna an yurafna lii day moo gën a yeey ci ñu xàmmee leen falaa yuzayna ba kenn du leen lor wa kaana allahu gafuran rahima sa borom yàlla nekk na kuy jéggalaate kuy yërëmaate la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad su bàyyiwul day naafiq yi ak ñi nga xam ne seen xol feebar da caa nekk wal murjifuuna fil madina ak ña nga xamee ne nii ñoom ñooy yëngal fitna ci biir madina la nuxriyannaka bihim kon daañ la xiirtal ci seen kaw summa laa yujaawiruunaka fiha illa qalila gannaaw ba du ñu dëkkati ak yow ci madina lu dul lu néew mal'uuniin ñu nekk ñu ñu rëbb aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk uxisu ñu jàpp leen wa qutiloo taqtila rey leen ak rey sunnat allahi fi alladina xalaw min qablu aaday yàlla ca la nga xam ne ñoo jiitu woon lu jëkk walan tajida li sunnatillahi tabdila te doo fekk mukk ñeel aaday yàlla benn coppite mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ne ay yow yonent bi di juróomeelu woote bu mu ko woo ci saar bi waxal sa doom yi sa soxna yi ak sa doom yi jigéen ñi ak mboolem jigéen ñi jullit nañuy jël seen jàllaab yi ca loolu wolof bu ne jàllaab yi mi ngi ci namm lu ci bëri yu góor yi di sol waaye la nga xam ne mooy jilbaab mooy yére boo xam ni jigéen da koy sol mu muur boppam ba ci suufi tànkam loolu nag da ngay gis su dee ne lenn yu suñ jigéen ñi di sol nga xam ne dañuy sol jilbaab yu ñuul yi nga xam ne day jóge ci kaw ba ci suuf fa lillahi alhamdu loolu day nekk na loo xam ne lu gën la waaye même bu doon te ne soxna bi yow defoo loolu waaye sol nga sa grand boubou boo xam ne nii day bu ëmb sa yaram yépp la nga jëlaat kol gu mag teg ca kaw mu ëmb yaram bi yépp ba dara feeñul ci yow loole li ngay gis ni mooy jubluwaay bi donte ne ne bokk na lu ñu yàlla nattoo mbokk mooy moddu ibaadu bu bees bi ñu xew léegi ñu bari bi ñu déggee ibaadu dañ ko def am modd te moo di ne jàpp ne ibaadu mooy naa jël daggati kol rek muur sama bopp jeex na léegi naa sol sama buddi naa sol sama jiin bal naa sol sama kilot te gis naa ñaari ibaadu modde yoo xam ne kilot lañu sol wal iyaazu billah di ngi noonu loolu mbokk parce que xamuñu su ko defee mbokk julli gi ñuy julli dafa am ay charte muuraayub ibaadu it noonu la amee sart sart bi ci jëkk mooy na muur yaram bi yépp muy benn ngoo waaye na yaatu ba benn cër feeñ bu mu wane ni nii la gannaaw gi toll nii la toogukaay gi toll nii la ween yi toll loolu lépp bu mu ci woon dara la sunu mag ba yal na yàlla yërëm ko Cheikh Adi Touré daan wax mooy colug mbarum fetal fetal boo koy wutal étui bu nga koy dugal mbar day jël forme fetal gi mu ne jigéen ñi bari nag seen col lool la ay bi ñu sonoo tailleur yi bi ñu yàlla nattoo tailleur da ngay ñëw mu natt ween yi natt digg li natt lépp nga xam ne léegi boo solee yére bi sa forme lay jël mbokk loolu daganul ci jigéen daganul muy sol yére bu génne ay formam daganul muy sol yére bu yaraax boo xam ne nii tey wane melokaanu deram yooyu yépp mbokk mbir la yoo xam ne nii ci musiba yi la bokk su ko defee kon soxna say jóg ne dafay muuru jël ak kol dugal ci kaw baatam nañ ko lay biir ne ko waaw d'accord yaa ngi bëgg waaye nag defagoo la yàlla santaane ngiree mu daal di koy def loolu nag suñu borom yàlla moo ko dégle doonte ne mbokk yàqkat yi gis ngeen ki mujjee génn ci télévision yi ca siiw ci internet yeeg yépp te nee na ay bàyyam ab sëriñ la lu mu wax mooy muuraay yooyu yàlla faratalu ko fenn waaw gars yi rek ñooy exagéré nangam nangam Sabata Ndiaye alors lu ne mu wax ko am na keneen ku ko jiitu ku ko gënoon a bew moom it mu ne waay yow muuraay dem mal nag mal na ji loolu ban loolu day ak ak nite jigéen xijaabam mooy personnalité sa personnalité bi nga am moo tax benn góor du la ñeme lu la neex solal ci ay téeméeri junni nit war ko muy wax jalgati aayay borom bi jalgati sunna yonent bi jalgati doxaliinu sahaaba ya ak seeni soxna yëpp ndax yàlla bi mu wàccee aay bi daf na yonent bi wax ko sa soxna wax ko sa doom wax ko mboolem jigéeni jullit ñi mboolem jigéeni jullit ñi doon muuru ba tey loolee mbokk nañ gis ne nañ wax kon ne nit ki dee ñu koy muur kooku c'est du n'importe quoi ku dee nañ la solal culotte rek suul na ci suuf am déet yàlla ni santaane ñu suturaal ki dee nga xam ni normalement wurutu fitnaal kenn yàlla na nañ ko suturaal waaw kii dund nag yor fitna nag su ko defee loolu kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax la nga xam ne mooy muuru jànq jala war ak jeeg ja nga xam ne dañoo doon dëgër suñu borom nee na màgget gi dem ba kenn bëggatu ko ci sëy sax nee na bu ba ñu ne muuru ah am bu muuruwul dara bàkkaar amu ci doonte ne mu muuruwul moo gën loolu la yàlla wax waaye su muuruwul it amul bàkkaar waaye mu muuru moo gën borom bi subhanahu wa taala nag ne lii bu ngeen ko defee kenn du leen lor ca wallahi mbokk bépp jigéen bu muuru muuru sharia du romb góorug caaxaankat ba mu am ci moom pexe am déet ni noonu na benn waay boo xam ne kilifa la ci armée bi wax na sama mbokk ba fëriga yi da ko ah Sénégal daal man jigéen ñi kenn jaaxalu ma fi xanaa jigéen ñi ibaadu yi waaye yàlla nañ ko yàgg a jaaxal mi ngi noonu mi ngi noonu parce que koo xam ne boo jógee ba koo jox loxo mu téye loxoom foo koy jaar ba njaaloog moom ki nga xam ne tey boo ko joxee loxo mu téye loxoom ndax da nga ko invité baal ba wala ko leen raaba nga xam ne da ngay tax di biij biij suba ba ngoon ah loolu kon ñu gis ne kon mbokk loolu yàlla santaane te en général da ngay gis ne day ànd bépp jigéen bu commencé muuru commencé dul joxe loxo su ko defee kon la yàlla ne kenn dina lor mi ngi noonu mi ngi noonu sama mbokk mbay jaat yàlla na ko yàlla dolli wér nee na dafa dem formation Allemagne ñoo jóge école bi ñuy jóge université bi ànd ak ay nationalité yu bëree nga fa woon léegi kaar bi fu ñu romb rek disket yi gaa yi nekk ci oto bi di leen sànni ay orange yooyu di saboté nee nañu dem ba mujj ñu dajeeg ñaari xale yu jigéen ñu jilbaab sol sol gi kii ñu romb kaar bi gaa yi xool xool ñëpp na tekk nee na maa ngi nekk ak sama benn mbokk mauritanien mauritanien bi na ma waaw gis nga gaa yi ni ñuy sabote xoolal ibaadu yi yaa ngi dégg kenn waxuleen dara kon la yàlla wax muy dëgg mooy su ngeen muuroo ni ngeen war a muuroo kenn du leen lool fa la yuxzayna loolee mbokk kon ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi nag subhanahu wa taala nag ne naafiq yooyu nga xam ne ñooy lor julit ñi ci biir madina day suñu bàyyiwul loolu ñuy def day dana doon ñoo xam ne dinaa la xiirtal ci ñoom mbokk murjifun mooy tànkuti fitna yi te tey kenn jiituwu ci sunu journaliste yi mbokk da ngeen ci bàyyi xel bu baax ku yàlla nattoo ci loolu nga la waay bëgg sa journal jar wala bëgg sa émission rajo télévision siiw bu mu tax mukk ngay def yoo xam ne ay musiba la ku ne xam ne ne doomu aadama yi li leen li ñu bëgg mooy yu bees ak yoo xam ne dafay yéeme mais lu normal soxlaalu leen lu normal soxlaalu leen su ko defee am nañ suñu benn mbokk fii saako yàlla na ko yàlla dolli mbir ñu ngi génn école journaliste dañ naan dañ naan leen nit ñi soxluwuñu nga naan xaj bi matt na nit ki ñu ne loolu du information information mooy da nga naan biig day am na nit ku matt fee benn xaj gay na ah waaw loolu information kon nit ñi loolu lañ bëgg mooy yoo xam ne mbir yu jaxasoo jaxas seen i xel jaxas seen i fitna loolu nag la ñu tuddee murjifoon su ko defee ku ne war cee bàyyi xel suñu borom mu ne bu ñu bàyyiwul danaa la sant nga xeex ak ñoom waaye yàlla ci suturaam musul jox ndigal yonente bu mu xeex ak naafiq yi suturaal na leen ba la ci ëpp ci ñoom avant ñuy dee tuub nañu dugg ci biir lislaam borom bi nag mu ne lii mooy suma sunna te suma sunna di soppeeku ay itamit boo ko xam leen la ñu yàlla waxoon ci alxuraanam ji depuis quatorze siècle mooy valable bu bisu tey mooy valable bu ilaa yumi diin yàlla ay waxam du soppeeku yàlla nañu yàlla tënk ci ay ndigalam dox suñu digganteeg ay tereem te defal ñu mujj gu rafet defal ñu àjjana suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad loolu de am na la ñuy tuddee question jurisprudence ala kulli xaal nee na dafay ñëw ci jàkka ji léegi ñu ngi julli am na jigéen ñu nekk ca gannaaw léegi ñoom dégguñu li imam bi wax ñu ne ko dimbali ñu su imam bi dee su imam bi dee julli nga jottali ñu ngir ñun ñu dégg te moom dañ ko roy benn rakka léegi imam julli na ba sëlmal ndax moom du imam ne salaamaaleykum day wax salaamaaleykum loolee la chaque ne moom du mën a wax salaamaaleykum bu dee ne ci ni mu waxee comme jigéen ñi nee nañ ko jottalil jigéen ñi it raw na leen benn rakka su ko defee kon yow boo jógee da ngay wax allahu akbar ba ba julli sa julli yëpp di wax allahu akbar ca gannaaw boo paree ne asalaamaaleykum jigéen ñi ñoom daañu wax asalaamaaleykum bu ko defee yéen ñëpp seen julli baax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw pour bu laajee seen diina ñu ñu leen di wax.
foofu bu laajee pour xam diina.
waaw.
bu ñu génnee rek ñu raad ko ñu koy raad ñu laaj lu tax lu tax moom koy laaj wala ñu raad ko ñu laaj waroo laaj waroo raad.
ah ala kulli xaal islam amu ci lenn lu ñu wurta laaj li ñuy laaj daal mooy laaj ay diingat laaj loo xam ne nii yow dalu la xamoo ku mu dal loo xam ne mënta nekk la. laaj yooyu mooy la nga xam ne mooy laaju jéngat yooyu daal la ñuy bañ des fois yi nga gis ñoo xam ne nii dañuy laaj pour indi ay polémique benn laaj nga laaj ko oustaz tel oustaz tel oustaz tel ba pare ñu ne ah kii lii la wax kii lii la wax lii la wax indi ay polémique te mën na am ñoom bu ñu daje woon daan juboo mën na am ñoom bu ñu xamoon ne kii wax na ci du ci wax ala kulli xaal bu dee ne daal yàlla dong nga tax ngay laaj mooy da nga xamul di laaj moom amul benn laaj bu tabu ci lislaam waaye ne fekk la ngay laaj da nga koo aajowoo loolu mooy la nga xam ne mooy mbir yi moo tax lenn ci borom xam-xam boo leen masaan laaj naan la wax ndax li ngay laaj dafa am mi ngi noonu su ko defee bu dee amul ñu ne la xaaral bu mu am mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ndax burka farata la burqa moom mooy muur sa kanam du farata waaye mooy la gën moom la soxna yonent bi daan def su ko defee jigéen bi ko def def na la gën jigéen bi ko deful amu ca bakkaar allahuma lu dul boo ko deful yow jigéen it moytul toilette kanam ga def ca ay rosa ki pastale ki ba mel na endo ngiree na dagan déedéet li dagan a génne mooy kanam ga ak loxo ya bi charte mooy bu ko taaral bu taaralee dagut a génne mais bu dee ne dafa naturel su boobaa génne ko amul benn bakkaar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam am na ñoo xam ne ay jaayoo lañu dañuy natal jigéen ñi seen wér yi ak nag fas ci suuf jaar ci ndox ba ci gannaaw. loolu dara na ci góor wala dafa war a benn jigéen boo xam dafay natal.
ala kulli xaal du dagan ci góor mu tiim jigéen di ko natt loolu du dagan ci góor muy def loolu abadan da ngi noonu bu dee ne ndaw si daf ne man kat dama bëgg yére boo xam ne dama koy sol suma biir kër maag suma jëkkër ca yére bi il faut mu yem ci man na wuti moroomu jigéenam kooku nattal ko jox ko la nga xam ne mooy done ya waaye di yow yaa dugg ak moom jël sa kii teg ci ween yi jël sa kii teg ci suuf jël sa kii teg fi muy kii déedéet loolu mbokk du dagan jigéen di def góor di def ak loolu jigéen góor ak jigéen seen contact du dagan lu dul ci wàllu médecine moo di ne kii kat loru na ca amul benn jigéen bu ko taxawu su boobaa yow góor la ngay def ak moom dana doon lu dagan parce que lor moo taxaw suñu borom mu ne la ma leen araamal leeralal naa leen ko lu dul loo xam ne da ngeen caa loru yal na yàlla sellalal ñu suñu diine may ñu aafiya fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad